بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يرجون لقاء aousubillah min asheytaan irajim bismillahi irahmani irahim alhamdulilahi waxda wasalaatu wasalaamu ala man la nabiya baxda asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokk yi ni seetaan ci seen télévision waar wi tv ci sunu émission bi nu jagleel ñi nga xam ne mooy jataayu daara yi tey ji nag ñu ñëw ci daara ju mag joo xamante ni ñu ngi fii ci Touba ci dëkk bu sell bi ñuy wax daara Cissé waaye ñu bare bari gën koo xam ci daara yi cinq xam naa ginnaaw bu nu siyaaree ñaanal xalifa général de Mouride sunu borom yàlla defal ko aw fan wu gudd ak wér ñaanal Cheikh Mouhamadul Mourtada sunu borom defal ko ridan wa rahmatan min allahi albati te ñaan googu ñu yéenewaale ci njabootuk Serigne Touba ñu góor ñi ak ñu jigéen ñi. di ñaanal bu baax a baax mbooleem ñi nga xam ne ñu ngi nuy seetaan ci waxtu wi ñu toll ak di nu déglu te nag ñu ñëw foo xamante ni bu ñu ñëwee suñu xol dafa sedd guyu guyu guyu ñu am mbégteem xol. ak teg yaram ak cawarte ci bërëb bi ñu tàbbi muy daara ji daara joo xamante ni jàpp naa ci kanam tuuti di ngeen dégg ki jiite daara ji wax waaye di ngeen gis tamit ndongo yi nga xam ne ñooy jàng kon bala noo guddal dañuy jox siise yi nga xam ne moom la nu dalal tey ci jataay bi ñu nuyu ko ñaanal ko yàlla fiq aw fanam yàlla defal ko tamit tawféex ci li nga xam ne moom lay liggéey ñuy ñaan yéen ñi nga xam ne yéen a ngi déglu tamit yàlla defal leen ubbi seeni nopp te ficcal leen seen xol ak seen xel ba lépp luñ ci dégg muy njariñ yàlla may nu cofeel ci sunu yaram ak wéer ban man koo jëfe Cissé ñu ngi lay nuyu di la siyaare bu baax a baax xanaa ñu jox la kàddu nga nuyoo. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñu ngi leen nuyu yéen ñëpp tey jiital ci nuyoo bi xalifa général murit sëñ Muntaxa te nuyu waxaale njaboot gi yëpp de ko jaare ci sëñ Muntaxa moom te sawar ci seen ñëw bi kon bismillah dalal nañ leen. Cissé ñëw nañ ci daara ji suñ bëggoon a xam daara ji nan la tudd jëmmi daara ji nii rek nan la tudd. daara ji moom jaar-jaara mi dafa yaatu lool dañ ko wax daaray sëñ Cissé daañu ko wax daaray sëñ Saliou daañu ko wax daaray cinq daañu ko wax daaray Mariana. Euh, ok jërëjëf euh, sëñ Cissé ñu koy wax loolu mu am ay tur wala fi wax ne bari tur day le mbër day tegtale ak njàmbaar daal. Euh, kon bu nu bëggoon a xam kañ lan sos daar ji nga tàmbali di jàng nii kañ lan ko sos. waaw daara ji moom jaar jaar yu bëri na ndax nun nu ngi gën a jamono 1975 ci dëkk bu ñuy wax Kër Bakk mu nga ca côté Kaolack foofa lañ ba bañ ñu dem ba am juróom-ñaari at ci côté 1980 ñu daal jàng ci dëkk bu ñuy wax Ndaraame am fa juróomi fan jàll dëkk bu ñuy wax Tawa am fa juróom benn weer ñëwaat Ndaraame. suñ sama dëkku maam la am fa juróom-benn weer dem njànq am fa juróom-benn weer ñëwaat ndaraame am fa juróom-benn weer dem luumin amaat weer ñëwaat ndaraame am fa diir bu gàtt dem ko sëñ moom Mbaye Cissé ca njaarim am avant ñu am ñaari at ñu mokk alxuraan bàyyi ko fa dem kokki am fa ñaari at tëri fa alxuraan amaat ñaari weer kon ñaari weer lañ am kokki tëri fa alxuraan biñ bàyyi njaarim amaat fa ñetti weer dellu si waan njaarim bind fa juróomi kaamil avant ñu am fukki at juróom dugg ci loxo sëñ Mourtala bi mu ñëwee këram gii ci forage nekkoon nañ fi nekk fa diir bu néew dem ci kër gi ci jumaa nekk fa diir bu néew dem ci kër ga ca ndaam foofee nag falaa dale tasawuru sixaar yàlla dem ma jàng ko ci fekk booba sëñ Mourtala dañoo waxoon da ngeen jàng ci école bi yéen ñii nga xam ne da ngeen di jàng da ngeen jàng ci école bi kooku ci man léegi bi ma demee jàng ñaari ñett ma ñëw ne ko sëñ bi féedee gisuma gis jàng ndax njàng ma man booba sama passé na loola ndax booba li ñuy jàng mooy ay sab yun nangam nangam loola man damaa gis ne sama jàng passé na ko léegi ma gëj a jàng sëñ bi ne ma ko ah kon tee ngaa jàng téere yi kii yi ma ne ko sëñ bi damaa bëggoon kon nga bindal ma ñaar téere yi may war a dalee sëñ bi bind ci loxol boppam tasawur sixaar ak laxdari yu yàlla dem ma jàng tasawur sixaar ci diiru fukki fan mu jeex ma dal laxdari yu jàng ko moom itam matut fukki fan mu jeex booba naari étudiants ya fa nekk ñoo ñëw ci sëñ bi laaj laajte ne ana karaan jàng si te sant si sëñ ñu ne ko jàng si wut waaye moom de jeexal na laxdari yu booba ñoo xamante tasawur sixaar waaye xam nañ laxdari yu ñu ne laxdari kenn waru ko mën a jàng ci fukki fan ko xam léegi bañ ma ko laajee ma xam ko ñu ñëwaat ci sëñ bi ne ko kii daal xam naa boo toppatoon njàng moom mën jëriñ ëllëg sëriñ bi jëlee ñu foofu yóbbuñ ci këram gi ci altu daaru bi ñu jàngale fa tuuti mu yóbbu ñu géejawaay foofee laa daree ibnu asir ibnu asir fukki fan laa ko jàng mu jeex wala fukki fan ak ñaar waaye nja euh, ndakaaru booba njàngale mi sëñ daara yi jàngale daanaka duñ mën a toog loola tax sëñ bi jëlee ma foofa ca ndakaaru ca géejawaay indi ma Kaolack jox ma ndigal ma jàng risaala risaala yi ñaari weer laa ko jàng mu jeex sëñ ba jëlee ma yóbbu ma pësi ci sama dëkk maam sancal ñu fa jën daara daara jooju boobu laa wax ne man ngaa gëstuwaale xam-xam fii ma dal téere bu ñuy wax nawul waadi ci ku ñëwoon Njuugu Tuure ma jàng ko ci moom lu toll fukki fan ak nangam mu jeex mu dalal mu laatu era ma xool ko ne ko téere bi de xam naa ko mu ne ma ah tee nga ko jàng rek ma ne ko xam naa ko yaakaar naa danaa ko xam ndax boobu la ne ci téere bi moo ne ci bii mu dalal ma ay tomb mooy tomb tasrif nga xam nañ ko jàng ci suuf mboolem daanaka lu ñu jàng ci tasrif rek tasrif lépp mu jàngal ma ko ci ay tomb ci suuf ba ma xam téere yi nga xam ne xam na maanaa yi moom ma bàyyi ko foofu dem dëkk ñëw euh, ci biir booba maa ngi jàngale ci daara si Mourtala waaye damay jàngale am na dëkk ku ñuy wax Passy Sanc moom Passy 2 la ma leen di ko ñëw Mansour Touré ma daal fa maanaam Ibnu Durédu jàng ko ci fukki fan ak tuuti mu jeex ma daal daal di jàng ko ñaar fukki fan ci ca kooka mu jeex ma bàyyi ko fa ñëw dëkk bu ñëw coogeen ci fàllu bu sa mooy moog Passy ay 4 kilomètres ci foofa fa laa jàngee euh, kii misbaahu saalik moom it ñaari weer laa ko jàng mu jeex ma jàng fa burdu lu tolloog semaine mu jeex ma jàng fa euh, kii burdu xam si yàlla tolloog moom itam fukki fan ñaar mu jeex ma ñëw dëkk bu ñëw kër ba kër kër ba kër moo posé un kilomètre la wala un kilomètre tuuti fi ne sax dëkk bi yóbbaale ko ma dal ci ku ñuy wax Mamadou Lamine euh, mu jàngal ma te maqaamatul hariri moom it bët ba seen maqaama laa jël ndax juróom fukki fan ci laa ko jàng foofee ca jeneen bàyyam ji mënoon ak maanaam xalil falaa dalee xalil ak miraas tombi miraas bi ma jàngee xalil ba mu sëri si Mourtala jëlee ma foofa indi ma ndar bi ma indee ndar mu yóbbu ma si Ousmane li falaa jàngee ibnu Durey euh, falaa jàngee euh, kii mm, euh, kii ajuruma moom it diir bu gàtt laa ko jàng daanaka semaine mu jeex ndax booba yeewu naa lool tasrif it booba yeewu naa ci ma jàng fa nusatu sërif ci ñaari fan mu jeex ma jàng fa laametul afal daanaka ci fan fanweeri fan mu jeex jàng fa muqaddimatul kokki diir bu gàtt mu jeex ma jàng fa laam eh, kii eh, Alfiyatu ibnu Malik daanaka ci ñaari weer yu teg tuuti mu jeex mu jëlee ma foofa indi ma Kaolack ci suñu Omar Niass xalifa lew na ñeseen ma jàng mu bu mu boole ak moom ma jàng fa son rawal jaay ci ñaari weer yàlla def mu jeex mu jëlee ma fa yëpp ma dëkk bu ñuy wax Taïba Bayaan ma ko ci côté ma jàng fa bayaan moom itam ci ñaari yu manqué tuuti mu jeex sëñ ba jëlee ma fa sëñ Murtala ci boppam jëlee ma fa yóbbu ma gànnaar ma jàng fa usool mantiq imraar xaroot ak yeneen tiir yi moom itam mu jeex ma gëstu fa lasraar ñëpp si ndar ci ndigal suñu Murtala bi ma ñëwee ndar nekkoon naa si noon di jàngale daara ji ma fa njëkk ubbi diir bu gàtt laa fa jàngale ma fekk man ñeen téeméeri nit foofa xat ma jàll ca côté kër góornóor ci looro moom itam foofu ubbi naa fa jeneen daara wala moo fekk ëpp na juróomi téeméeri nit foofa xat nu indi ma ci balakoos ci jàkkaay suñ Tuubaa jooju foofa la ma fa doon jàngal mën na juróom benn téeméeri nit foofa xat gannaaw gi nag laa njëkk si Tuubaa ci ndigal suñu bi ma njëkk si Tuubaa ubbi naa sama daara bopp da jàngale diir université bi ubbi ñëwoo ma fa may faa jàngale université boobu ba ma fay jàngale danaa fa jàngale ma junni nit téere téere téere xam-xam loolu ma faan jàngal mën na junne ndax damaan xëy di jàngale fajar ba euh, une jot ñu añ may jàngalaat bañ jul tàkkusaan kon naa di jàngalaat bañ julli gaye foofee am naa fa diir euh, bàyyi ko fa dem sura sura googu it am naa fa la juróom juróomi weer wala juróom benn weer mbooloo ma dem ba ëpp ba jéggi wa daara ja xajatuñ fa ñu bàyyee ko foofu mu Moussa Saliou mooy ma génn kër fii ci côté garage bi foofu diir bu gàtt lañ fa mbooloo ma xajatuñ fa sëñ Cheikh Ndigal ñëw fa mayaan ma yeneen ñaari kër ba tey mbooloo ma xajatuñ fa sëñ Saliou jëlee ma foofa ci côté 2001 andi ma fii ci daara jii nii ngay maa laaj kon 2001 lañ ko njëkk a sos daara jii niñ ko sosee sëñ Saliou Mbacke moo fi ñëw jox ma juróomi téeméer dongo yoo xam ne dongoy boppam lañ yoo xam ne dongoy boppam lañ fekk boobu man li ma ci dongo mën nañ ñeen téeméer dongo yoo xam ne maa leen yilifal sama bopp ma dem ci ja xaaj la ma ñaar fukki jàngalekat ak juróom-ñett jël leen andi leen ci daara Serigne Saliou ji ñuy jàngal dongo Serigne Saliou yi bañ leen jàngalee diir bu gàtt ma ànd ak ñoom dem ba ci Serigne Saliou ne ko jàngalekat yaa ngi nii nee ko xanaa ni di aw xam bu ko lewee sañ na ko joxe addiya mu ne ma waaw ma ne ko mooy man ma ne ko ñii kat foruma leen di jintuwuma leen ca sama daara la nekkoon di jàngale alxuraan ak di jàng xam-xam may di jàngal ca ñoom nag laa xaaj ñuy jàngal sa dongoy bopp yooyu ñu fekk sëñ bi ci janatuma maa waa keroog boobu sëñ bi ne dem leen ci sama néegu bopp ba xaar ma mu dugg ci nee ba toog tuuti sëñ bi ñëw yëgal 3 millions yi mu ñu ko jox ñu ne ko addee sëñ Tuubaa mu yëgatee juróom-ñaari junne ne ma lii ma buñ ko delloo ñu ko na ca daara jooja dong sëñ bi yor leen la tolloog diir ba xaw a gàtt sëñ bi dal di jël dong yooyu jàll leen nee ma demal jëli sa dongoy bopp nag andi leen ci daara ji keroog bi may ñëw ci daara ji sëñ Saliou ci boppam moo ne buñ sëlmalee timis damaa soxla rajo jumaa ji biñ sëlmalee timis la yebal Abdou Diouf Abdou Diouf ne ko nañ yokk rajo ba mu sës nu déclaré ci rajo bi xamal ne sëñ Cissé moomu maa ko jox ndigal jàngale xam-xam képp koy jàngati séeréer rek boole naa la ak moom loolu moom ma indi ci daara ji man na fi ba sëñ bi nelaw nu kon ne di jàngale daara ji nii la ñuy jàngalee man sama bopp su ma xëyee fajar danaa dem ci jumaa ja toog di jàngale danaa fa nekk di jàngal di jàngal di jàngale ba neuf heures ba mu naaj ci biir jàngale it danaa am yeneen dawra yu ndaw yoo xam ne ay sëñ daara yoo xam ne ne ci sama pegg ku ma ñu toppal la ñii dañ nekk jàngale soo fa nekkee ba mu naaj ma dal di ñëw wër bi daara ji soo wëree bi daara ji neexaat ci sama yitte samay taalib ak samay yeneen ba mm, bëcëg jot ma neexaat ci daara ji wër daara ji nii la ñuy jàngee bu huit jotee ñuy jàngal alxuraan dal dugg da jàng ba mi di jot nu wàcc su ko defee suñ daara ndaw yi nekk affaire da jàngale ci biir daara ji ñenn ñi da jàngale ba trois heures ñu duggaat di jàng alxuraan suñu jàng alxuraan ba cinq nu wàccaat dana am suñ daara ndaw yi ne ci biir da jàngaleaat xam-xam ak yooyu suñ jàngalee ba jant bi ba jant bi so ñu duggaat di jàng alxuraan suñ jàngee alquran ba ba ba julli julli gaye nu wàcc nu wàccee gaa yi ni si nit suñ toogee mu kaw a guddi ñii de durus xasaayit ñii de yëkkati maanaam ay ay xasaayit mawul tak ñii de siikar ñii def leen ba tëdd joon ñu tëri daara ji daal doxeen waa ngoog barakallah ah macha allah Eh, eh, Cissé li nga doon jàng nii li nga waxee nii li nga doon jàng ndax eh, da nga ko doon jàng nii wala doon nga ko dégg ndax yi ngay wax nii yoo xamante ni nit ñi dañ ci am daanaka ñetti at wala at ak nangam yow nga ne ay ñaari weer ñetti weer da ko doon jàng wala daa am leneen loo doon li nga wax leerut ci boppit ñi lay déglu de. waaw xam nga dégg naa ko dégg dégguma ko moom li ci àtte bi mooy. nit melut nam jànge ndax man bi ma jàngee ba ñëw sax ñëpp dañ ne Cissé jàngut bi ma commencé taalif téere nag taalif moom mooy moom. xam-xam borom xam boo mënta dégg rek bu taalifee rek weer na boppam téere bii ngay gis nii mhm. mën na junne bayt ak juróomi téeméer mhm. te ci ak aj màkk laa ko taalif jaar-jaar yonent bi la mhm. amul lu mu bàyyi ndax boo demee ci mbooleen téere yi def siira da nga gis ko naan indi naa jikko yonent bi comme samaayil nga gis ku ne indi naa xasawaat nga gis ku ne indi naa maanaam yonent bi nga gis ku ne indi naa maanaam nga gis koo xam ne indi na xasawaat yi nga gis koo xam ne sawjaatu rusul rek lay indi nga gis koo xam ne maanaam saaba yi lay indi téere bi nag boole na yëpp ndax boo demee jaar-jaar yonent bi mu ngi ci mhm. siiratu na bi mu ngi ci samaylu na bi mu ngi ci sawjaatu na bi mu ngi ci asaabu rasul mu ngi ci yooyu yëpp xasawaat ak saraya yëpp mu ngi ci biir téere bi te bii nag moo gën a tuuti ci téere yi alfiyatu ibnu maalik bii ñuy wax nii way na wayaat naa ko ndax way naa alfiyatu boo xam ne juróom benn téeméeri bët laa ko def te mboolem nekk ci alfiya ba mu nga ca la ne ci ibnu boonam mu nga ca la nekk ca muqaddimatu kooki mu nga ca la nekk ca imran li ci yëpp mu nga ca ndax ci biir téere bi may tàmbali maa ngi ne wa boo defal maxsoo tey alfiya motaleen misli bi sul bi sul say alfiya dama ne li ma bëgg léegi fi mu ne comme jamono daa soppeeku te dañ ko war a gàttal damaa bëgg la na ci alfiyatu ibnu malik ak la na ci motaal mutaalio saada mu téere suyuti bi ak li ëpp ci ibnu bono muy ñaari junne bayti ak yeneen téere yu mel noonu yëpp dama ko bëgg a def juróom benn téeméeri bayti mu jeex ah jërëjëf si si léegi liñ dégg nga wax ni dañ cee déggut tafsir da ngaa tafsirut da ngaa da ngaa jàngut tafsir waaw tafsir moom ndaar moom bëri na ñoo fa daan tafsir tafsiral boo demee ba weeru ko jotaan bëri nañu bëree bëri am na ku ñaaw baro mu ngi fii ci dëkk maa ko tafsir alxuraan mu ngi fii ci côté isbu yi lam moom itam daara ji ëpp na ñeen téeméer wala juróomi téeméer nit sa daara ji ñu la fekk si fi ñu toll ñaata xale ñoo fi nekk ñoo fi yeewoo ak ñoo fi jàng maanaam daara ji nekk ci dapt moom nga ne nangam la ci saa moom doo ko mën a xam ndax dañ ñii dañuy dugg ñii di génn waaye am na jamono ñu ko compté matoon na junneeg juróomi téeméer mhm. ndax daaw bi ma ko xoolee rek bi cent wee li ko dalee cent wee ba cent wee li dugg si ci biir daara ji mën na juróom nit daara joo xam nag at mu jot la mat juróom-ñaar téeméer ni dugg fa yaakaar naa kii na. Eh, yow at mu ne ñaata nit ngay mokkalal ñaataa fii mokkale ci daara ji. ba tey damaa lu ñu mokkal lim bi bëri na bëri waaye goo xam ne daanaka mane su ko kii ndax ñun dañuy def pari groupe léeg-léeg ñu jël ñaari ay weer ñii tëri fukki nit tëri ñu toogaat diir bu gàtt ñii tëri ñu toogaat diir bu gàtt ñii tëri ñiy mokkal daal bëri nañ lool. di ngeen bind kaamil am doon bind daara ji. ba tey ñii bind kaamil bëri nañ lool. waaye du fi sart daal kum neex nga bind kum neex nga bañ a bind. ndax fi mu ne jamono. Mm-hmm. comme kaamil yi bëri nañ. Mm-hmm. te boo mokkalee daanaka daara ji bari bu xam-xam la. Mm-hmm. ñi ci ëpp ñaare bu ñuy mokk rek gaaw nañu dal téere waaye dañ ca bind kaamil nag. Euh, lim bi nga wax nii fi ñu toll li ma ci laaj te laaj bi ma xaw cee tiit lool ci li nga ma nar a euh, jigéen ñi ñaata lan fi maanaam lim bu ndaw lay doon de xam naa ne. waaw jigéen ñi moom taxul ko bëri ndax jigéen ñi ñeent xam nga jëmmi daara ñi boo gisee jigéen ñi duñ bëri. daa am ñu génne ci sama daara ji ne ci koñ bi samp fi yeneeni daara daanaka xaaj bi ñu ci ëpp jigéen ñi foofu lañ nekk waaye jëmmi jigéen ñi ba ne dëkk ci koñ moom te dafa jàngi taxul leen a bari ak Cissé wax dëgg yàlla ni nga def ak li nga liggéey ci alxuraan ak jigéen li mu am ci importance ci lislaam ak taxawaayam yaa ngi wax léegi sawjatu yonante bi ni nga gis ni mu taxawe woon nga xam ne Aysa daanaka bari na lu solo ci addis moo ko jàngale daaray jigéen da ko nar a bàyyi noonu rek ginnaawal ko. déet bàyyee su ko déggu li ma la wax. am na nañu génne ci sama daara ji nekk fii ci koñ bi samp fi yeneen daara li ci ëpp jigéen ñi foofu la nekk kon kay mu ngi mel ni sama daara la rek déedu maanaam jigéenu umma bi kay laa bul ne sa waa koñ beeg waa ruq beeg nangam yeneen jigéen ñi war a jàng te toll ci jàng loolu ban pexe ngeen ciy jël laaj bi ko yaag ñëpp ko bokk sax yaag siñ daara yëpp ba tey doxin la rek sama mbaar mee boo demee da nga fa gis jigéen ñu bëri jigéen ñoo ñu koy ñu ngay jàng jigéen ñaa ngi fa laaj boobu de xam naa ma tëb ko rek sëñ Cissé ginnaaw ma damaa bëggoon nga ne ma jigéen ñi moom am na fu ma leen di beral foo xamante ni. mi million yi jigéen dina. xam nga man li ma bëgg mooy. waaw daaw biñ dajee fii ci daara ji dama ne man bàyyi naa wax ji lu ñëwagul nangam laay def ci liy ñëw moom nee naa bàyyi naa ko ni may doxee daal mooy heure bu ngeen ñëwee lu ma def ba noppi ma jox ko gannaaw bu ngeen ma laajee ma wax ci waaye nangam laay def si moom dootuma ko defati. Euh, koñ bi gis nañ nga tabax fi daara ñaari daara yaakaar naa ne dugg nañ fi a joo xam ne àggagut sàncagut eh, buñ doon xool li nga financé ci daara yi ndax wax dëgg yàlla ay étage la benn bi sax du quatre étoiles trois étoiles la xaw ma quatre eh, quatre étoiles eh, foofu tamit yow ñiy jàng di wàcc ñëw fa ëpp wala xale yi dañ faa nekk yaa yor seen lekk wala ak seen naan ak wala dañuy fay wala fayunu loolu it laaj la maam daara ji ñetti pàcc ci lay daw hmm. benn pàcc mooy ki laxasal boppam ñëw ne man kat damay jàng xam-xam hmm. di magam jëmm ëpp na ñaat Mm-hmm. maa la jox dëkk waay yor sa lépp ngir yàlla la beneen pàcc mooy ki nga xam ne moom dawut tawuti bokkam jaaxalu leen jàng lañ séq ak moom moom it danaa ko jàngal ngir yàlla la beneen pàcc bi nag ki nga xam ne nag moom nanguwul a toog faw dañ koy ras euh, kii am fuñ koy kii téye ci barab maanaam bu wàccee nekk ci kuur bi kooku day aajoo seen daara koy jàngal aajoo ñu koy garde aajoo ñu koy dundal kooku boo ñuy des na la gaal sart Euh, yaa leen di dundal ñoom ñëpp ak yooyu da ngay bay xanaa. mbay mi nag taxut ko am solo ndax daara ji fi mu ne nii li ñuy togg par bés rek dix-huit mbana la ndax dañ togg juróom-benni mbana ci bëccëg gi toggaat juróom-benni mbana ngoon toggaat juróom-benni mbana lool nag boo xoolee dépasse bi yaakaar naa fi ne war naa pour juróom fukki junne par bis. loolu foo xaalisam di jógee da ngay liggéey leneen xanaa. <laughs> yow fayeeku woo defoo dara ah sëñ si Eh, yow fayeku woo bayoo ana say tool amooy tool bayoo fayeku woo la la looy liggéey ba mën a yor xale yi naa leen ñetti anam rek daara ji war na cee mën a dox hmm. benn bi barkeb alquran amul lu mënut ah. beneen bi ku tool ni Sëñ Saliou Mbacke daara joo xam ne moo ko sanc ñëw fa toog fa une heure ci guddi dina ñaan ba cinq heures daara jooju warte amul lu lu mu tële beneen ba mooy ba ma dala jàngale ba tey li ma jàngal ciw nit kenn ku ne ma doon jox weer wu ne téeméer rek wala nga jaar fi ma ñaar téeméer loola kenn xamul nu mu fii moom daanaka mooy réseau bi rek fii moom mooy réseau bi rek daanaka mooy woon mooy réseau bi. réseau mooy lan mboolem sëriñ buy ñaan ci Sénégal xaaj bi ñu ci ëpp samay la ñuy ñaanee sama xam la ñuy ñaanee xaaj bi nag waxuma ñëpp samay téere la ñuy ñaanee fii it boo fi toogoon bu guddi nga ñëw fi da fi gis ku ne foofa nag laay yem. loolu koy leer na loolu koy ëpp naa jéggi moom loolu koy ëpp naa jéggi kon eh, tey ku doon ñëw fii ku déggoon daaray Cissé cinq bâtiment di bëgg fee ñëw fii fan lay jaar ba ak si sa kër. waaw boo ñëwee bu Touba da ngay laajte Madyana Mbaare ya boo ne Madyana Mbaare rek boo ñëwee ñu laaj wax la daara ji ba tey te su fekkee loolu daa kii sama numéro téléphone boo jowootee rek ñu ñu mënoon moo gën a gaaw 77 377 81 06 77 377 81 06 parce que numéro baa ngi noonu leen ko affiché ci biir incha allah rabi si sëñ Cissé eh, fii xale yi eh, ci ban kii la ñuy jàng warsa la ñuy jàng wala xabs wala lu ñuy jàng noonu. ba tey ñun daara ji. ay jihaad yu tàqale ko la. Hmm. booy bi nga xam ne dañ ko dalal ci wars. Hmm. mu doon jàngee feneen ba jaaxal baaye mu andi ko fi. Hmm. duñ ko dëppal de ko defal beneen xabs. booy bi noon jàng ci as. ba sori bu ñëwee am na fi seen daar yoo xam ne ñoom afsa lañ jànge boo ñëwee ñu yóbbu la ci ya su fekkee warso nga jàngee boo ñëwee ñu yóbbu la ci seen ya waaye doo nekk de jàngee am njàng ba suri ca ñu ñëw dëla de para mel ni ko dalal baa sin déedéet loolu duñu ko def kon lépp a ngi fi eh, mi am na tajwid lépp a fi hmm. tajwid ju wéer a wéer a wéer sax mu ngi fi hmm. waaw lépp a ngi fi أعوذ بالله من سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا loolu ku ko bëggoon a xool ne nan la sëñ Cissé di tajwid te nan ñaata aaya la ñuy jàngal ñu dégg ko. Eh, ni ñuy tajwid moom. daanaka fi ne xam nga man man ni may jàngee bokk rek ni daara ji jàngee ndax man na may jàngee fa ma daan jàngee laa ko jëlee soo bëgg a xam ne daara jàngee dañuy jël kenn ki daara ji mu jàng Euh, waaye sëñ Cissé danoo gis nag ñu bari ci sëñ daara yi leen lay wax ci programme macha allah waaye li ñuy appliqué moom lu néew a néew a loolu moom xam nga ko yaa ma ko a xam sax euh, mooy li ñuy jëfee maanaam li ñuy wax taxi daal boo dikkee dana xale bi dina nelaw heure sangam dina yeewu dina jàng isib dina sangu dana def nii dana lekk dana nangam waaye boo yenn woon ci daara ji ngay gis ne liñ la wax moom daanaka li nga ciy gis lu néew a néew la. xamoo koo xam ne maanaam li ñuy wax lépp moom li ci ëpp li lu sikk mooy la ëpp la nit di wax. waaye kenn nu ko ne li nga wax lépp def nga ko amut amut ci kaw suuf nun nag bu doon déggu li ma la moo tax ma noonu la nun du ñu wax lu dikkagut ah. danoo xool li ñu jox gannaaw boo ca laajee ñu wax ci. Euh, léegi léegi bit laa bëggoon laa bit seeb daara yi fi ñu toll mën nga koo tudd li nga def ba financé daara yi yëg ak euh, ndax yow da nga am xaalis fu mu lay dikkee euh, ñaata li nga ci financé nu mu toll. a bit see daara joom daanaka déggoo li ma la wax bi bi sëñ Saliou jógee ba ci laa tàmbali daara ji tabax fi mbaar mag moom ci suuf ba ca at ma ca toppaat ma jënd pàkk jumaa ji ci sept millions tabax ko def ko premier bi def ko deuxième jumaa ji sax njëkkoon nañ ko tabax toj ko ndax boobu daa xatoon léegi ñëwee ci premier bi deuxième bi at ma ca toppaat fi na daara jii ngay gis nii yi nga gis ni am na yeneen yoo gisul ndax am na jeneen ju nekk fee ca kaw moo ëpp ji fuuf moom it ñu ngi koy liggéey pareewut ju bokk rek jii ñu demoon nii mm-hmm. waaw ak comme daara ji ni rek xam nga fi ne ab sëñ daara sax ni mooy tabaxee hmm. pour mu mën laa jikki ne nangam laa ci def moom mënta ne waaye xam nga bâtiment yu toll nii tey boo ko doon lu feneen foo xam ne maanaam leneen demu ca nga xam ne kon lépp da koy fay menee bari yaag lépp xam nga un milliard tabaxu daara ju mel nii xanaa si sam sëñ si sa mën naa yëkkati loxoom ci ñi ëppale daara ñi nga xam ne si daara ci gën a rëy Tuubaa mën na cee bokk mën naa mën naa xayma loolu waxam man de mënu maa wax ne maa fi gën a réel daara waaye boo laajee gars yi ñoom gars la att loolu moom du ma ca wax laajal gars yi rek. ndax sa xel xalaat na eh, ndax réew mi fi mu toll kenn mënu fee tudd daara te tuddoo kokki ndax eh, jëm nga foofu wala xañ na da ngay jàpp ne loolu kiimaan la rek nga koy def. xam nga kokki man wax naa ne newoon naa fa. Hmm. ndax am naa fa juróomi weer. Hmm. am naa fa ñaari weer. Hmm. tëri fa alxuraan amaat fa ñetti weer di jàng door a ñib saat ci fi ne man waxuma la. tudduma jenn daara hmm. waaye sama adaf ak sama bëgg-bëgg hmm. fa ma bëgg a yegg hmm. foo ko foo xool sama bër rek sama bër yeesu na foofu ah doy na waar de eh, waaw man de yàlla fi ma xawee sama xol bi daa sedd waaye fi ma xawee amee tuuti gañ ngajj ngajj xol mooy jigéen ñi daal wax dëgg si yàlla dañ leen a war beral daara yoo xamante ni ku dikk li ñuy fekk fee ñu koy fekk fële loolu moom taxawaay la boo xamante ni xaw ma tàmbale na wala xam nga daara yi koñ jigéen ñi ci koñ yi rek ñu bokk leen bu ñu jàngee am mayet jàng maanaam biir daara ji boo fi jàng jigeen ëpp na ñaar téeméer ñaar téeméer kay ab tàmbali ku tàmbali rax ca leen man ñaar téeméer nit biir kër gi ay gune lañ ma jox ñu fees ma may di jàngal koo kay ma nga ca yoon wa. fii xam-xam yan téere leen fii jàng kon yow noppal nga téere bi léegi eh, bu xale bi bu ko jàngee ndax dina ko déggee ni mu waroon a déggee ñaata téere nga boole nga ne alfiya bi la xaw ma ak lan. téere yi moom waaw. téere yëpp lañ fi jàng Bakar mii rek doy na ci seede ki ngeen àndal nii bi ngeen di ñëw. Hmm. maa ko dara alxuraan hmm. te fi mu ne mën naa taalif jàng na bayaan ak arut fii la ko jàngee te maa ko dara fii la daree alxuraan mu ngi noon ci biti mu ngeen génne ngeen laaj ko ba xam dégg na ko dégg ko loolu la xeer nga bind téere bi ndax da ngaa defe ne mag ngi leen bind ci yonante beeg liñ ci kii ak am da ngaa defe ne siira bi daa matut ak mat xu bin ci def maanaam man naa waaye na daa soppeeku hmm. maanaam sëñ Saliou mooy koo xam ne dafa doon ku ku ku kenn xamul hmm. bi may dem Màkka booba fukki nit la ñu boole hmm. muy man ak yeneen juróom-ñeenti nit léegi bin toogee ci sëñ bi ci guddi gi bay jog sëñ bi ne Màkka da ñett fay dox doole xam-xam alal te yéen ñii am ngeen alal am ngeen doole mm-hmm. sëñ Cissé mii nag am na xam-xam mm-hmm. ngeen bañuy réeroog moom biñ jógee ba ci buntu ba sëñ bi ne ma nii sëñ Saliou de ah. ma dëppaat bi ma dëppaatee fekk muy toog ci ak njawaan def nii mm-hmm. bi ma ñëwee mu a ma yoral sa loxo ma yor sama loxo nii ci mu jox ma takkab cinq millions waaye waxuma dara dana ceel la ma ne ceel la bi ma demee ba dakaar ma wéccee ko euro bi ma demee ba Makka comme que man gëstukat laa ma dem fi yonent bi saa salaam gënee jamono bi ma fa demee ma laajte am fa ay argument yoo xam ne xëy na ni ma leeree nii li ma gis bokk na li ma daan jàng ci tiir yi ndax am na lu ma ci gën a leer mhm. tey boo doon gëstu mbiram sëñ Tuubaa mhm. ñëw ñu la ñu daan la wax bayti mhm. dala wax daaru minam dala wax kër sëñ Soyebu dala wax kër sëñ Saaliw nga ñëw ñu la bayti ngi nii baa ngi jàkk jaa ngi daaru minam nga nële kër sëñ boo nga nële nam lay leer du bokk la doon maanaam ci rëdd am ca xam ju leer ma ne man ni may def léegi mooy su ma xëyee luy ab oto fu yonent bi mooy gàddaay fi mu jaar bi mooy xare bara ji nii nisir naa joo xam ne ba ko tàmbalee hmm. jii mooy ju ndaw ji allah li ah. ji ci noppi ji mooy doon ju ndaw ji hmm? Hmm? jërëjëf kon mbokk yi ñuy seetaan ci sunu waar wi TV ñu nekk fi ci daara Sëñ Cissé Euh, sëñ Cissé ñu tur bi dama war nañ koo xam ne wax dëgg yàlla Cissé sant wi rek. Euh, euh, Mouhamadou Lamine Cissé laa tudd. Mouhamadou Lamine Cissé waaw kay léegi jàngale alxuraan. fi waa siira bi laa nekkoon dama naa ñëwaat tuuti incha allah ñu tëjewaat ko sax léegi maa ngi ñëwoon ci ci ci ci jàngale alxuraan fan yi xam nga ne kufur bi am na fi jafe-jafe yu métti am fi ñu doon jàngale tegay fitna coono yi bari benn bi ci desaat. gouvernement bi day aye ku jéng ndax yooyu am na ci ci ci daara ji di nga ko def wala doo ko def. xam nga couvre-feu moom man gisuma kenn kuñ dem ci sa daara na ko bàyyil jàngale. nun noonu nu ngi doon jàngale nañ daan jàngale nañ doon jàngee lañ doon jàngee mosu mos a dakk jéngit yàlla def nañu mosuñ koo bàyyi boo tabaxee daara ju mel nii. Hmm. cour bu yaatoo nee nekk fa. Hmm. mur bu yaatoo nekk fa étage yu mel nee ne fa. Hmm. booy bi ne ci étage jàng bu wàccee ne ci cour bi dem fenn. waaw jarul ah waaye ñi amul moyen yooyu nag moom kon xanaa yooyu moom yàlla moom amul lenn loo xam ne ñëpp dañoo am moyen lépp amul leen boo demoon ba ci état bi sax fii ne am na dëkk yoo xam ne amuñ ay école te ñoo yor yow nan nga gisee internat yi fi am ñii naa wax eh, ku fi am ñeenti at wàcc alxuraan mokkal def nangam nan nga gisee njàngam internat maanaam lépp a baax internat ak daara ji internat ak kay yelwaan ak kay tërbiya ak kay bayloog daara yëpp a baax li am solo mooy boo dajale xale yi nañ jàng rek amaana kale bu amee ñeenti at mokkal bu amee benn at mokkal ñaari at loolu du jàggan lu lusik ci ñëpp loolu bu ñu ko waxee mooy ñi ëpp xale bi daal bu ñu la ko joxee jàngalal rek waaye bu amee nangami at mokkal moom xel yi bokkuñu ndax man mi ba may jàng daal naa jël roman ma jël nisif te fi ne boo boo tey noonu rek fi ne noonu rek yow yow Cissé li nga wax dafa mel ni sa njàng mi yëpp daanaka li ëpp ci Sénégal la Mauritanie nga dem te xam naa ne li nga wax yàggoo fa euh, ba noppi di taalif ay téere bay bind ci siira yonante bi ak foofu ni mu sensibiliser. maanaam téere yi bayt yi ma njëkk a taalif gars yi xam nañ ko. Hmm. ca Dakar laa ko taalif dama ne wa innamaa darastu nisfal axdari fatahaani sayqu fotoal asqari fasiltu naasiman li kulli maa araa wa kulli maa darastu baynal waraa dama ne maa ngi ba ma jàngee xaaju laxdari rek laa mag ubbeeku ca laa tàmbalee ndax man ki ma doon jàngal muqaddimatu yasiya keroog bi may jàngal ba dalal muqaddimatu yasiya ma ne ko lii xam naa ko mu ne ma dinañ ko jàng keroog laa ko njëkk a way ne ko ilam wa fil masa alal xufay ni mi ne suratu doon a may ni ndax booba naari éditions yi ma jaxasoo boo fekk na kàllaama arab ambaat yi bëri yu ma ci man te daaji yi ni ma koy déggee loolu tax na fi ne ma mën a wéy bu ma wéy nag donte wéy ay dami dam yi waaye ba may wéy moom wéy na maa daratu nisfalax dëri laa wax fataani sayqu futuwal asxari ba ma jàngi xaaju lax dëri rek laa am fatu fasir naa sama li kulli maa ara moom mujj na commencé di wéy wa kulli maa dara soo baynal wara yaakaar naa ñoo fekkante woon dara dëkk yooyu xam nañ dara li ci ëpp li ma naan jàng dama ko an wéy ba ci sëñ Omar Niass mii kere ma si Mourtala booleeg moom bindal ma leetar bi ma yegg ca moom ne ko ñebbu leetar bi dama ko ne attaque saayirun yuridu saara cheran wa saara yi ne ne tekk mu xool ma ne ko waaye bi isni man dara mhm. dama ne attaque ñëwal la saayirun waykat mhm. yuridu saara bëgg jàng saara wal jaahiliya mhm. saaran wa saaray ni ma ne ko damaa bëgg nga jàngal ma ko weer wala ñaari weer sëñ bi ne tekk dama xool ma ne ko waaye nag bi is ni man dara ci ndigal ko xam fi laa fi ñëwee mooy sëñ ne ko jàpp leetar si xam naa li des ci kii bi baaxul ñu delluwaat ci siira yonent bi sala salaam nga ne woy nga eh, yonent bi ci eh, yow ci damaa gis fi mu toll am na ñoo xamante ni dañuy jàngale eh, dañuy tagg yonent mat xu la ñuy def waaye ci biir da ngay gis ne siira lan ciy waxaale ñoom. loolu loolu ñaar yooyu mën naa ànd maanaam nit kii di def mat matxu di jàngale waale siire waaw mën naa xam nga loolu hmm. tey su fekkee da ngay def mat di jàngale siire baax na hmm. ba tey su fekkee da bëgg xawlan bu gàtt nag tënk rek hmm. nga xaay doo ci dugal ay matu dangay tënk rek wax lii siira loola moom ci lay gën a gàttee ndax ci biir téere bi gis nga bayti bi rek maa ngi ne huwa yuux nii an xayrihi lay sa yuux nii xayru wa ma xawaaw fii saraaw huwa téere bi yuux nii day doy an xayrihi bu boo ko jàngee téere siira buñ la mën a indi rek soo ko dem xel war nga ko mën a xam ndax taalif ku la mujj taalif rek day jël la gaa yi taalifoon indiwaat yéen yoo xam ne gaa yi indiwuñ ko waaye lay sa yox ni xayroo téere boo mën a jàng te jàngoo bii dañ ci fekk loola a ah, ah waaw sëñ si <laughs> ngay dëkk borom xam yi nag. Ah, yow yow bu yàggut loo xamante at yi bëreegut mag ñi bind fi ñoon bind fi naar yi bind fi lépp bind fi ñu dundandoo woon ak yonante bi nangam. yow yow nan nga gisee eh, maanaam. masa bi ki mujj bind. waaw ki mujj bind moom day fekk la yi bind xam na ko. Hmm. jàng la yi bind. su ci boolee gëstu boppam nag war naa mën a indi nag loo xam ne nangam nangam mu ngi mel ni fi mu ne nii ba njëkk. kaset hmm. yii. Hmm. da nga naan jël kaset bu mag. ñu ne boo amee quatre di dix nangam nangam léegi nga yor carte mi ma wur tuuti jël àddina ak li ci biiram dugal ko ci xam-xam moo yokk. am na loo xam ne boo waxoon jamono ñaan diglu moño tafa yi day indi jaaxal eh carte mémoire wu tuuti ngay yor dugal ci maanaam loo xam ne mën naa def junne kaset boo ko waxoon ka njëkk defar moño tafa da koy jaaxal garaawul de sëñ am loo xamante ni ci jàngal alxuraan euh, day nit ñi dañoo jàpp ne lu yomb la waaye moo gën a jafe daanaka ci jàng mooy feral xare bi ijji loolu fu nan nga ciy def yow maanaam jëmmi jàng rek tabian la duut sax lu ñuy duut lu ñuy jàng ci këyit ñu lu ñu wan nit jàngale moom tabian bu yàlla may nit la rek tabian la boo xam ne boo la ko yàlla defalee da ngay mën a jàngale man ngaa tagg nit ki jéem bu jaarale ko fee jaarale ko fee jaarale ko fee dara nga gis koo xam ne day yeewu ci àddina man lu ne du mën a feral ji nga gis koo xam ne daanaka am na ñoom lay doon du yeew du xam dara waaye bu jàppee xale bi diir bu gàtt mu fer tabian la rek euh, maanaam yow yow couvre-feu bi daf mel ni amoo ci woon benn jafe-jafe yow daf mel ni yëgoo woon li xewoon ci réew mi lu ma ciy yëg man couvre-feu bi sama yoon néew ca maa ngi yor sama dong ci sama biir daar da leen dundal da leen jàngal lu may jotee couvre-feu xanaa ñi jiitu woon couvre-feu bi sax indi nañ seen njaboot ci biir daara ci jamono couvre-feu ji du ma tudd kenn. lan mooy lan mooy sa secret. lan mooy sa secret. lan mooy sama. secret secret bi nga yore. dama ne biitu siwal qur'aani bil qur'aani lu dul alquran rek jaay naa ko jëndee ko alquran biitu siwal qur'aani bil qur'aani waaw alquran mooy sama secret. <laughs> ay jërëjëf mbokk yi kon xam naa ñu ngi dalaloon suñ Cissé Cissé xam naa dañ lay bàyyi nag ñu daal di tàggoo ndax jataay bi moom neex na lool xanaa dellu siwaat gi kay la ñuy la ñuy waajalaat incha allah. waaw waaw. Basiiru. Basiiru waaw. ka des. ki ci des Alsaan. a ah, ayca ah, nga ne waaw waaw. Ah. waaw dama bëggoon eh, léegi eh, ñu daal di eh, ñëw rek tàggoo ndax jataay bi neex na ba noppi liñ ci bëggoon a xam lu bare bari xam nañ ko ci waaye fi ñu yow li nga xalaat nii amut ñoo xamante ni fu ñuy jàng xam-xam ñoom rek ñoo fa nekk ak ñuy jàng si ki am loolu amu ci yooyu jàkk ji nga wax ne bi ngay jàng loolu lu sedd sama xol la ndax jàkk moom doon ko war a dundal ci xeetu xam-xam di fa jàngale waruñu koo tëj rek di tijji di jàngale rek di dem loolu moom wax di yàlla am nañ ci mbégte lool euh, xale yi fa la ñuy jàng lépp nga ne xale bii nga doon wax léegi fi la jàng bay taalif. ah ma ngi noonu ci biti boo génnee nga coq ko laaj ko rek <laughs> boo génnee nga coq ko xam nga newul ci biir boo génnee nga laaj ko. Ah, doo mag doo mag nag wax dëgg yàlla yow tamit. Ah, koo xam ne avant ngay am ñaar fukki at tàmbali ngaa jàngale loolu moom mag du ci dara xam-xam moom. Hmm. fàttali xat yëpp da amaamal wooble wal fa li waa bi laali talli. Hmm. waaw. dama nga ci ma saali. jeex <laughs> kon mbokk yi ñu daal di tàggoo nag si si ñu jox la ginnaaw bu ñu la sante bu baax a baax ñu jox la yan euh, kii ngay tàggoo loo xam ne lan ngay dénk sa bopp di ko dénkaat ñiy jàng alxuraan ak ñi yore ay daara ak ban pas lan war a li nga li nga. ma lan ngay dénk sa bopp rek laa bëgg a wax ci wàllu alxuraan ñu ngoy ci bu baax ak sëñ daara yi nga xam ne say nattangoon la di jàngale ak xale yi jàng ak waajuru ndongo yi ñëpp sax laay wax. xam nga daanaka dénk moom jaru ko jar na ko jaru ko. Mm-hmm. ndax yàlla dafa yonent bi ne ko isru ala maa yaqul na muñal li ñuy wax mm-hmm. léegi nag ku gis image yii mm-hmm. da nga gis nga suma jëf mm-hmm. boo gisee sama jëf ji rek royal ci jëf ji mooy dénkaane bi boo gisee samay jëf rek royal ci jëf ji rek boo royal jëf ji rek mooy dénkaane bi kon baax na sëñ Cissé c'est waaye dañu wax ne xale yi tam benn laaj maanaam ñàkk leen a liggéeyloo gi dina feeñ ci ñoom seen yaram dun ki yeeg yooyu yow am nga fa xale yi di sport rek a def ak yeeg yooyu biir daara ji kay boo fi duggee ba mu di jotee kay sëñ bi boo duggoon ponkali it ini dañuy daw ba ñàkk tey xëpp. ok kon jërëjëf sëñ Cissé ma jox la nga tàggoo ginnaaw bu sama xol seddee ma jox la nga tàggoo xam naa ne maag suñ Basiroo ak ñëpp suñuy xol sedd na ak ñu ñuy seetaan doyalul nag waaye dinañ fi ñëwaat moom nag ñuy joxaat daje sax lu du yàgg lool ñu ñëwaat fi incha allah jot gi ñàkk na lool waaye teewut nag moom fii fas yéene noonu mu doon suñ daara joo xam ne daal lépp lu fi xew ñoo koy gën a siiwaleel ñëpp bisimilah ñaan ngi moom lu ma koy tënk rek mm-hmm. ci samay baytee rek ni ma baaxoo noonu rek mm-hmm. dama ne wa jut li moodu mm-hmm. saalihin basiiri alsaani kullal falli bil xadiiri daqir umoor naa bi saalihin daqar umooroo bi xaadimin fa mu daqir dama ne wa jut yow yàlla yàlla na nga tabe mooy man mii saalihin ak sëñ saal mii basiiru ak basiiru mee alsaan alsaan mee kullal falli gépp nga ne rek mu jeex kulal fal li nga net rek a gu mën a doon rek bil xadiir yi maanaam dugalal nag umur naa suñu mbir bi saalihin dañ ne boo bëgg dem te mënoo dem da ngay jël sa dugal ko ci kuy dem kon jëlal sunu mbir dugal ko ci mbiram sëñ Saaliw mu dugal ko ci mbiram sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa dugal ko ci mbiram yonent bi yonent bi dugal ko ci mbiram yàlla mu jeex moo tax ma ne daqir dugalal umur na sunu mbir bi saalihin ci sëñ Saaliw xëy daqar dugal na umuroo mbiram ma bi xaadimin ci sëñ mu daqir mooy yonent bi barkalaa kon mbokk yi li ngeen doon seet ci image yi muy étage boobu ngeen seet muy cinq bâtiment la fa nekk ci xale ak la nekk ci xale yi ci jàkka ji di fi jànge ak fii ñu ko fekk nag doon defee kii bi mu doon këru boppam waaye gis nañ lu bari loo xam ne lu gis ci moom la loo xam ne cofeel la ci ñun mooy wax yàlla mën na ne àdduna tege na ci loxoom lu bari waaye yëgu ko yëgu ko ci doxinam yëgu ko ci solinam yëgu ko ci kiiwaan fii may wax ak yow de mhm. su ma nangu a dem. xam naa waxuma la nit ku kii la waaye ñeenti président ci Afrique yi yoo xam ne jokkoon na ma ak ñoom nu bëgg ma dem te demuma la ma sëñ Saali waxoon nag ca laa nekk. keroog bi sëñ Saali toogee ci daara ji de ñaan une ci guddi. di ñaan ba cinq mu dem ba ci buntu ba woo ma ma taxaw. mu ne ma toogal fii loolu fekk dama ko amut. ma ne ko gees ne ko loo amut bëgguma ko àddina ak àllaaxira ku ne woolu na ma ku ne bëgg na maa jaxasoo ma lank dew ma at mi ma ajee mag ñu bëri faa leen fekk te ne ma koy tontu it maa koy wéy ñu jàpp na dama koo mokk fekk man lañ may maa koy wéy bi ma noppee dañ ma ne toogal ci réew mi loo bëgg ñu jox la ko ma lànk fii ma nekk nag ci daara ji insha allah fii laay toog def li ma sëñ bi wax def li ma sëñ bi dégal ba ba may faatu soxluwuma leneen bugguma leneen itiwuma leneen loolu ngërëm ma sëñ Saliou képp su ko amee am naa lépp su ma ko ñàkkee jàpp naa ñàkk naa lu moo tax moom ma gënal lu ne yàlla nag ci taw fii xam ak ci baaxam lu ne may fekk fii ndax daara jee wax naa la ko ci Covid bi lañ ko tàmbali te xam nga yow daara jee ci téeméeri million tabaxul lee te ci Covid bi laa ko tàmbali kon lu ne ma fay fekk mbooloo mu toll ne itam ku leen di dundal gis nga cin ya oto man foos boobu nga romb ci mbedd mi noonu daanaka daara ji waxuma la maanaam dundab daara ji waaye li ñuy manque ci foos képp gasoil bi ak safari képp ab dund la ndax oto baa ngi ne ñaari fan yu ne foos yi fees la mat juróom-ñaari foos nekk ci ab daara ñaari fan ñett moo tax ma jënd oto oto manque foos bi maa ko jënd vingt millions ba yàggu dong ci ci ci ci ci màggal gi ngir daara ji képp tax ma jënd ko oto ba fee lay gaare ba njëkk ndox mi danaan bëri foos yi fees di kalaate boo woowee oto manque ñu yéex a ñëw benn bis laa xëy dem ndakaaru wax ak ka may waxal ne ko jox ma oto manque incha allah danaa ko fay yàlla def ca tawfeex it nag oto baa nga nee fii lay gaare ak yeneen ak yeneen daara ji manque jërëjëf Cissé <laughs> daal wax dëgg yàlla man moom jàpp naa la xarit tey ak kóllëre ndax wax yàlla yàgg na ma wëri daara di fa dem ay pas-pas bi ma gis. waaw tàmbalee moom ci a déggee. waaw mooy nga dégg ngay tudd. ma déggee nga tudd ko rek. ndax keroog bi ma sëñ Saali wooyee dama laaj. Mhm. ne ma foo jaar. Mhm. ba ma tàmbali xasida ga ne ko wa du fal xas du bayaanu jaraa. bay ne mhm. bay na Mourtada xutbil waraa. lii jaada Mourtadaay bil fat e saqiir wa baadoo li jaada bi faral kabir dama ko ne sëñ Saliou mu ne ma ah ma ne ko li ma bëgg léegi mooy biral la sama diggante ak sëñ Mourtala li ma njëkk defal fatu saqiir la defalaat ma fatul kabir fatul kabir gën a deesu ko wax moom <laughs> aqwaaluhum wala tunsar <laughs> kon mbokk yi jërëjëf eh, ñu ngi sant bu baax a baax yaakaar naa ñi may déglu boromi xel lan boromi xam-xam lan xam nan lu wér xam nan luy dëgg nit ñi li nga bàyyi ci li nga waxut sax lan gën a dégg ci li nga wax kon dégg nan nu bu baax ci jataay bi ñu dikk ci daara ji daara joo xamante lu mat junni xale ak nangam wala mu ëpp ko moo yore seen lekk moo yore seen kii xam naa bu ëllëgee dinañ wax sax ci pharmacie beeg hôpital bi faj ñi nii faj xale yeeg yooyu yëpp uh, wala bu mënoon a doon kàddu bu wàllu faj moom jëm lañ engagement mm-hmm. kenn ki moom nee na ma altine june mm-hmm. danaa ñëw seet dongo yi mm-hmm. keneen ki moom itam nee na ma àjjuma june danaa ñëw seet dongo keneen ki moom nee na ma heure boo foo ma soxlaa rek danaa ñëw seet ci ci dongo yi yàlla def na hôpital yi fuñ fi dem Mm-hmm. ak docteur yi li ci ëpp xaaj bi dañuy de bu dong bi demee de faju buñ bindee ordonnance li ci ëpp ñoo ko jox ba noppi ne ma def naa ko ba noppi kon mbokk yi jërëjëf yaakaar naa ne dañ fiy dellusiwaat mënul doo xaj ci jataay bi ndax noonu la ko yàlla dogale waaye ñu ngi leen di jox daje ak wér yàlla mayaat na ñu tàbbiwaat ci daara ji ndax suñ xol de moom ñooy dem nii rek waaye suñ xol du jóg ci biir daara ji ndax cofeel ak bëgg ki nekk ci daara ji ak li nekk ci biir daara ji ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ñu àndoon ak Serigne Bassirou euh, mi nga xam ne moo nekk ci montage bi ak réaliser émission bi ak Alsaan mi nga xam ne moo nekkoon ci caméraman bi ñu jox leen daje ci émission jataay yi ni amele ci Waarwi TV wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.